mbokku internet yi ñi nga xamanteni ni safo di ndamo sopp la jéeri ma ngi ni la petite salum salum madame Djigo ma ngi leen di nuyu waxu kay bi di wax ak yeen comme sen émission bi nga xamanteni mom lay faral di and ak yeen muy lima bëgg doon tay nak ma nekk biir euh, Mandela wa fédéral ndana lo xamne ne kenn du ko werante waaye tamit dama nan patak mom and ak sama ñaari caméraman dugg ba ci biir do leen won kan lay dalal yow mi nga xamanteni ya may sétane te bëgg ma lool laalal YouTube xol Elvision Média fa mu toogee nga daal di abonné tijji sa colosse luma def mu fekk la fa may jaajëfal bu baax baax madame gey mo ak man fi ci chaussures yi kon samay caméraman topp leen ma ma xool kan laa war a ah, sama daanaa li moom lay seen nee dëgg du neex salaamaaleykum waa ki may seen du dollar est-ce que du ay waay dollar laay gis nii dëgg du neex nuyu naa la fay naa loolu bare bare maa ngi kontaan bu baax a baax yow laa doon seede gis naa la tey jii laa yow laa dalal ci sama émission li ma bëgg doon waaw ni ngeen ma bette nii garaaw na de dëgg du neex ñun yi la ñuy def yooyu ak yeneen ak yee yow mi may seetaan nañ dem ci biir ma continuer waxtaan ak moom duma ko may dara tey dollar laa dalal bismillah <laughs> mbokk yi comme ni ñu koy defee saa su ngeen ànd ak Sow Poulo tey nag ma ñëw dalal ki nga xamante ni mooy Mbaye Dollar ci sama émission li ma bëgg a doon kee toog lan la bëgg a doon waaye yow mi may seetaan lan nga bëgg doon kon nag Mbaye du def lu dul nuyu la di la dalal ci sama émission li mu bëgg a doon. waaw Kumba fay nañ la sax di la jaajëfal di jaajëfal équipe bu El bi yëpp di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay. maa ngi kontaan bu baax baax ci dalal la si sama émission li mu bëgg a doon tey nag ma ñëwoon pour nga wax ma yow mbay Dollar lan nga bëgg a doon ak kan mooy Mbaye Dollar. Mbaye Dollar li mu bëgg a doon mooy ndaw la nekk ci yoon bëgg doon ab promoteur te lépp li nga xamante ni maanaam yoon laaj na ma ko ci. def naa ko j'ai mes papiers maanaam du ma fraude légal na te jaar naa fi ma war a jaar tegu naa fi ma war a tegu ànd ceeg samay mbokk ànd ceeg samay nit samay xarit samay am di jàmm samay doomu ndey ñu xàccandoo dóorandoo ndox mu am doole. waaw dégg ngeen ko xam naa ni moom nee na promoteur la bëgg a doon ànd ci ak ay xaytam ay mbokkam ay am di jàmmam mbay promoteur boobu noonu nga xamante ni moom nga opté. est-ce que ban promoteur nga ci bëgg doon ban ban lan nga ci bëgg doon carrément lan nga bëgg nek ci promoteur parce que promoteur mën nga nek promoteur bo xamante day couvrir événement bi événement bi événement be événement be mën nga ma ci citer ben non promoteur mom boko ko mom moom nga carte gi mhm. mais xam nga Sénégal da ngay gis dafa am promoteur yo xamni ñi dañoo faré ci lamb ji ñi faré ci artiste yi mais man ci ñima gëna faré moy ci artiste yi wa man visionné wu ma teug ay lamb ak yoy dedet parce que xamuma ko jànguma ko duma ko sàcc duma ko fen te duma ko for li nga xamante ni moom laa jàng li nga xamante ni moom laa xam mooy showbiz te ci laa ñaan yàlla dox. mbay milieu showbiz bi ak fii mu toll ak fi jamono ji toll ak ñoom ñu ciy dund gaay di ci dund lu salte mhm. yow nga jéggi saay rek nga ne loolu nga opte mhm. ak milieu showbiz bi fi mu toll gars yi liñ ciy defante des fois artistes yi di waxante du n'importe quoi ba site internet di si jot. ak yow euh, ni nga ko opté gëm koy xalaat gëm mm, gëm la rek. gëm-gëm la rek. gëm-gëm la rek. lu waay di woote rek dafa war a dëggu ci yow te man lii ma nekk nii dafa dëggu ci man àddina xam na Padros xam na Ibnu xam na Laay xam na gaa yi ma nekkal ñëpp xam na ndax bari na foo xamante ni say jaar naa fa. am na loo xamante du dund naa ko tey nag bu demee taxaw naan promoteur laa bëgg a doon c'est grâce à Padros xel mu sell mi ak xalaat mu sell ak mbay nite Padros la dañu dund man ak moom muy kenn ci man te du ñaar du ñett te nag ma taxaw tele ñu invité ma émission njogonal Walf ma taxaw direct ne billaahi wallaahi wa taalaahi jëmm ju mu mën am ci kaw suuf dogoo moom ko gënal maa ko wax boo tàppee youtube mu ngi fa te ba tey duma ci dellu ginnaaw aw ma xarit aw ma àndandoo ku ma mën ci am ci kaw suuf dogo faali maa jox taw aminte ñang moom mi takkul teere laalu ndomb kolobaati jam noor moo ma gënal ñëpp ñu ngi koy nuyu de passage Khadim Mbaye Dogo dëgg neexul waaye comme ni nga ko waxee rek foofu la ñuy ñëwaat ak yow. Mm-hmm. ndaxte da nga ne yow da nga euh, prêt pour ànd ak euh, mm-hmm. artistes yi. nag boo nekkee seen biir nga mën ci dund lu nekk parce que ñoom neen rek daanaka mooy loolu. comme ni ko mm-hmm. ñëpp noonu lañ ko mën a waxee. donc yow nga opté nekk ak ñoom. instant yi ni affaire yi ni mu demee nan nga koy gérer. noo affaire ni mu demee mooy xam nga lan demeewul nenn waxkat yi nekk ci biir di wax ak ñi bëgg bokk. ak ñi bëgg a xamee ñooy inventé ka yàq waaye ñun ñi ci bokk te xam xam nañ li fi nekk dara amu fi artistes yi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay samedi bi passé soirée Pape Diouf laa génn génn soirée Pape Diouf ñëw soirée Wally Seck bi mu ñëwee soirée Wally Seck man Tarba Mbaye El Hadj ñoo nekk foofu ñoo feccandoo kafandoo foowandoo ba mu ba mu jeex bi Tarba di ñibbi dana ma kaay ma déposé la ma ne ko Fass Mbaw laa jub dafa sori te da nga ànd ak ay nit demal mag arrêté jël taxi dem fekk yobbu mon sama sori jël sama taxi dem. kon yow li nga bëgg a moy digënté artiste dara nekku ci. dara amul dara. Tarba mbay ak elas Hadj Keita taxawon do doon feccandoo di bëré ndax yow mës nga dund lo xamanteni ci si artiste yi nga nek lo xamanteni comme yaangi ngi opté métier bi nga xamanteni moy promoteur. Hmm. mës nga ci dund lo xamanteni ni na lo xamné war nga mako mëna wax man. non ci bima fatali ko ak légui mom yalla xamné ni nak amul lenn lo xamanteni metti na ma ci benn metti bo xamanteni tax na maa wax waa par des fois nag tolof tolof mun a ñàkk. mais tolof tolof yooyu mbay moo tax ñuy mais maanaam xam nga xam nga xam nga kumba dama dama lay dog dama lay dog sama yaay ji yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana moo ko sama baay ji dañoo toog ci salle bi di waxtaan ma jot sama mag bu jigéen werante famille ne rek mu ne leen de xam naa ko yéen ñu toog ñëpp maa leen boole jur waaye xool bi mbay yor mbay leen gën fopp bàyyi leen gën xol man duma japp billahi wallahi wa tallahi man ya mu meuna rayal sama taw legi sama la wone ginaaw fatena non exemple la lay wax rek ah, man suma la wone ginaaw fatena man xama ban ban man li ci sama kanam xalaatu mu li ci sama ginaaw man non la mel man lu xass ba jall rek jall na parce que kiñu sakki tax ñu sakku ñu muy gën ci mindeef sallallahu alayhi wasallam. koku amul lu mu dundul koku ay mbalit ak lu ne la dan fekk ci buntu kërëm lu ne façon tolof tolof bu ne mais est-ce que taxna mu japp man ci mom lay roy motax man duma japp luma way def tay suma la woné ginnaw mala mo romb la faté nako Mbaye ne ko fi wolew ma nga nek fi khutba saman ba dundo ci métier bi lo xamné ne mën nga ko tek ci samay loxo. non manam métier bi li ci gëna metti lenn rek moy li ci metti lenn rek mooy daño yoron ben xalat bu sel ñun ay xarit ko doon ci ben télé bu ñu naan fajiri yoron xalat bu sel ak xalat xel bu sell ak xalaat bu sell toog toggandoo dem waxtaan ak sunu moroomu nawle muy góor comme ñun nag ñu toog waxtaan bu tënk li ñu soxla valeur sept million et quelques defu deux semaines mu commandé lépp mu ñëw ñu yor matériel jëlal ñu appartement fayal ñu appartement un an ne liggéey leen lu ngeen am def leen seen poos waaye ñëpp bokk ñu jikko te fu ay nit daje ci ko bu nek fay génn dama war dama waron dem tournage barki salatul fatih billahi wallahi wa watallaay soirée 2 2h du matin lay commencé billahi wallahi wa watallaay xam bu neur lay génn bureau gàddu sama caméra jël sama trépied ak lépp ban heure 23 trois heures et demi damay télé pointé artiste bu mo wara tourner bu mo wara tourner tourné yow seize heures quatorze heures damay fekk sa kër chaque jour chaque semaine dama daan dougal xaalis té man buma togué ak yow man luma réré dama la koy ñaan té damaay génné dem tournage ñu fay ma mo ñew jël xaaliss teg damaay wax dama ci lolu moy li ma gën a ak ay nit ji len ngor dund ak ñom ngor nak xoluma dara parce que alalu mbolo lo won mu sell trop man nekkon dof bi da ray sama bop mais tay rëccuwuma xam la motax ci jëlé muy xam-xam may ma connaissance buntu bu mu bëgg fëgg buntu bu mu bëgg actuellement nii macha allah bunt bu ma laal guddi ñu toll mu tijjeeku benn artiste dong laa xamante ni mënu maa laal bunta mu tijjeeku mu Youssou Ndour. boo ko laalee yu baale. moom dong moo ma tëj moom ma tëj mais guddi ñu toll nii amul woykat buy taxaw ci ko suuf laa la waxante ni su ma bëggee dugg si biir kër mbala ma bëgg laa jot téléphone fi ma toog laa lay jotee téléphone. macha li nga wax rafet na macha ñukoy rafet lu baax baax ndax métier bo xamanteni bo ci nekké il faut nga am ci lu la neex waye am ci lo nakari laal nañ point bi la nakari waye après dinañ laal point bi la neex bala lolu mhm. dañuy ñëwaat rek comme euh, sa digënté ak artiste yi ni ñu koy mhm. ku ci melni Keba sek mën nañ ko cité mhm. ñi dégg né dang ko wara sargal pourquoi pas comme yo promoteur nga ya ngi xalaat bu wal sek grand théâtre wala Sidi job nangam sangam pourquoi pas sax indi indil ma Sidi job suñu kër dama né la man xale laa te dama nekk ci yoon bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn Wally Seck Wally Seck pour man tuuti na ci samay rêve pour yóbbu ko grand théâtre xalaatuma loolu dama am samay mak man lima ma taxawal nii du man kase dama ami mak ku ci Bakri ku ci Samba ma dalla Fatou Demba mang ngi leen di jaajëfal ndax ñoo bokk benn ndey te bañ ba ma toogee xalaat nekkuñu fi ñu ngi à ba ñu njëkkee toog di waxtaan dañoo njëkk toog di waxtaan ne ma dañ lay yónnee oto nga liggéey mm-hmm. ma ne noonu man xaw ma loolu mm-hmm. dugg mënumaa dugg ci business oto ndax xaw ma ko mm-hmm. ñu toog ne ma xoolal loo bëgg keroog ba ma toogee xalaat ne lii laa bëgg liñ ma laaj mooy xalaat lan nga mën a déparé ñaata mooy sa financement te ay doomi nday lañ de suñu ñaari yaay bokk ndey ak baay ñu jiital ma te fa xasaloo ñu ma ne ma ñu ngi sa ginnaaw ñu ngi sa kanam lépp loo xamante ni laaj na ko te man pare naa pour yóbbu Wally Seck Bercy pare naa pour yóbbu tar Tarba Mbaye Bercy pare naa pour yóbbu Keba Seck Zénith bàyyi mu fi kenn damaa nekk ci te damay liggéey nee naa la lii dama ko togg ba mu ñor du loo xamante ni wax ju bari la du loo xam dama koy wax nii rek bu ñu paree tourner émission bi nii après dem déedéet j'ai mes papiers legal te lii entreprise la xëy na mbay moo ci fës nag mais la nekk ci ginnaaw mbay bu subaa la ñu koy gis. incha allah kon bu ñu yeggee ci suba incha allah dinañ xam mbay nee na li muy togg togg na ko ba mu ñor togg ko ci ay papier yu leer. léegi mhm. naa ne nga da ngay sargal Keba Seck. Mhm. sargal boobu laa bëggoon nga ñëwal ma ci tuuti rek laataa may tëj sama émission. waaw Keba bu ma ko sargalee sargal naa sama bopp bu ma ko defee daf ma war bu ma ko deful yi tamit daf maa war. Mhm. ndax day kenn ci man dund ak man lu ne jaar ak man fu ne metti loolu soxnam si yang nako yalla yeureum genn na adina ñu rob ko ba paré ci même jour la sama yaay genn adina, Keba wara wara and ak njabotam delu kërëm ndax soxnam la rob otom ñew sama kër pour assister rob sama rob yaay ma la lalu hôpital accident liggéey soirée bay teud la lalu hôpital Keba ma ke Keba kérok bu sama wa kër genné sama yaay ndey Soumaré ma ngi koy jaajëfal di ko nuyu keroog ba mu yégee ne entraînement hôpital ndeysaanam macha allah amul jàmm amul salaam moog sama yaay bokk benn day nekk fi keroog ba mu yónnee ne lu manqué nan ci def nañ ko woo wax ko rus na naa rus naa ko woowaat sax ne ko lii ak lii keebaa ba mu ñëwee dafa mer lan moo tax say mbokk génne di def te man ma war a def mbay na mu meloon démb ak barki démb dafa garaaw trop bu ma changé tey lu bari keebaa sekk la du ñu doy na borom xel ñu bari tey ji bu ñu seetaan nañ xam ne mooy wax mooy lan kon nag Mbaye Dollar nee na moom day sargal Keba Seck kooku di papaam. Mhm. dëgg neexul mbay dama bëggoon xam yow sa kii bi nga nekk nii comment des encore promoteur bi. Mhm. est-ce que li nga togg noonu jox nga ko tur. comme ça tey bu émission bi jeexoon nii tey nit bëgg la contacter wala di bëgg bëgg xam ci yow lenn daal. Mhm. ba xam am na noo ko tuddee parce que ñun ñoo ngi nii ñun ñooy waa El Vision Média. donc su ma bëggoon laajte mbay. ci nan laay nan laa lay tuddee. non mbay boo déggee mbay mbay maanaam dollar la non pas sa li ngay liggéey. structure bi dollar events la tudd. merci dollar events structure bi noonu la tudd li waral dollar events bi maanaam tey ji mooy mbay moo am xalaat bi kase mais mbay nekkul mbay def lépp dollar events bi ku ci mel ni Ibnu Jaxumpa mu ngi ci ak man ku ci mel ni Padros mu ngi ci ak man mu ngi liggéey ensemble xëy na kenn ku ci ne yaa ngi sa coin nag mais mbay moo am pour wax ndax mbay moo ne day sargal Kéba. mbay moo ko jël tulu dollar dollar bi ne da ci sargal mais mbay moomu ko kasse kase la amna 6 mak yo xamanteni tay ñu ngi ci ak man ñu ngi yalla sérieur ño bok ben nday amna frère bo xamanteni Seydou Dem dem euh Seydou Dem sama xarit la d'ailleurs mom, mu ngi fi actuellement Sénégal amna lu bari lo xamanteni waxtan nañ ko ci ci bu ñibé lu ñu wara liggéey man ak mom Dollar Event nak li tax ñu créer ko mooy maanaam dañoo sonn ci defal nit ñi parce que na artistes yoo xamante nang da leen di jàppale ñu dem bu ñu demee woon la ginnaaw fàtte la bari na am na artistes yoo xam ne tey ñu ci bari seeni contact rëcc na ma te amul kenn ku ci doxaat pour jéem a jot mbay dañuy tase ci millionnaire rek mais dañuy bool li ñu neex li ñu nakal ah. na trop démb metti woon na trop sax laay mënoo kon tey bu neexee ba ñu fàtte démb amul problème. macha allah mbokk yi yow mi nga xamante ni yaa may seetaan yaakaar naa ne tey li ma la indil neex na la muy jeune boo xamante ni ñu koy wooyee Mbaye Dollar muy jeune bu am ambition jeune boo xamante ni dafa toog xalaat. xam ne daal nee na day topp ci ginnaaw nit ñi ba mu neex ko mu toog xalaat togg yëfi boppam mu tuddee ko Dollar Events ñu koy rafetlu bu baax a baax ndax nit ku nekk lii lay ñaan yàlla euh, xar moo gis nuñ koy waxee mbote moo gis xaw ma na weesu mbote waaw kay su bëggee matum na nag day mel ni dollar nee na moom mat léegi mu ngi bëgg mat tabaski waaw ñu ngi lay jaajëfal damaa mat piir nag damaa mat piir <laughs> di la wax nag nga nuyoo euh, nga tàgg euh, lu nuyoo lu ne tàggatoo ko ni nga koy waxee mhm. fi mu ne nii yegg nañ bi nga doon sétane à travers Elvision Media mm-hmm. en même temps nga remercier ñi nga bëgg remercier. wa bo bu ma remercier rek damay joom mm-hmm. fu mu mom bu mu nuyoo rek damay joom di nuyu sama wa kër. di nuyu nak kenn ki nga xamanteni mom moom day sama lepp sori ci man sama xol sama adina sama alakhir moy sama lepp moy sama jabar. rakiba diko ñaanal yalla nak mo xam li mu bëgg ci xolam yalla ko suñu borom defal ndax jitoluma ben yon yoon di salam sama jabar sama jabar dama koy ñaanal yàlla nag moo xam ni mu bëgg ci xolam ndax nekk ak ndaw joo xamante ne maanaam li muy nekk ci àll bi guddi dafa bari tor man bëccëg gi laay nelaw di lundi jusqu'au dimanche damay génn guddi gi parce que lii moo koy firneen maag artistes yi ñoo nekk te artistes yi amul kenn ku ci dox bëccëg. Mhm. man sama li ma liggéey guddi la. site yi ma yoroon émission yi ma jëloon yëpp man sama émission yoo xamante ni maa ko moomoon sama bopp yëpp la les bons coins Yep, yo xamanteni sama émission la man mako mom waxuma pour lu neex nit ñi muy goudi heure bu mu damay fekk mu nelaw di feug diko déranger samay goro tamit jappalé mo bu comprendre ma xam sama situation jappalé ma ci lu di jaajeufal ñëpp surtout nak wa El Vision ndax tay soxla. munoon naa leen soxla benn sit rek laa contacté ci événement bi kenn rek laa ci waxal muy Bamba te sama waxu démb mooy sama waxu tey ruus ma ko wax ragalu ma ko wax te lii dama ne la day tas ku ne da ciy jot sit bu ne am naa ci yow sa contact barki alxuraan lien bu waay dugal daf ma koy envoyé lépp laay seetaan mais li waral man ma tàmm waa télévision bu dara maanaam li ma soxla man soxlawu ma quantité qualité laa soxla te ñu dunuyaay amateur ñun fëq yóbbuwuñu gaaruwaale wuñu kenn nag waxuñu dara mais ku fi liggéey ñu wax ko macha allah peccum liir nag su neexee nday jàttee ci mbagg ya te élage mention spéciale ndax tey jii mënoon naa toog biir këram du ñor di booche mais élage moo nekk sur le terrain élage mooy wàcc bamba ak élage boo leen gisee man ànd boobu daf ma jaaxal ah. dafa ma jaaxal ñoom ñaar liggéey bi am seen biir déggoo bi am seen biir di leen ñaanal yàlla nag. sit bi dem ba nekk euh, euh, tele muy télé bi gën a rëy ci télé yi waaw xëy na nag boobaa nag moom dinaa ñëw comme réalisateur ñi may jël may succès xam naa ne loolu moom incha allah rabi léegi rek ñu àgg ci. waa di la jaajëfal nag Coumba bu baax a baax a baax a baax di leen jaajëfal di jaajëfal ñëpp waaye nag damay nuyu kenn ka nga xamante ni moom du ma rus di ko wax du ma taay di ko day kenn ci man te su ma yàlla bëggee dëgg na ma baay ak moom ma ñaareel ma ñetteel waruma ñeenteel aw buru këram bopp la jéeri Ya xam li nga bëgg sa xol ci lu baax yalla na la ko suñu borom defal bu dé barki sayidina Muhammad man sama ñaan mo lay taxa a mba mo lay tax a wallu billaahi wallaahi bu fi yamon sax neexna barki Nabil mustafa lenen lo def da nga dolé rek way li nga waron def yëpp def nga ko ya xam li nga bëgg sa xol yalla na la ko suñu borom defal ndax tay nak mbay nu mu mënanti mel mbay bu sété yow la mbay bu nité yow la mbay bu yow la mbay bu yow la té xolo ci dara bëgg gumba taxlu lu ne dégg na ko kii danaan toog place di liggéey jigéen ñëw fekk bu place am jàkkaarloo mu xool ko mu xool ko saaga ko ndey sama jabar kar nan ko lu ne dund na ko te mbay melu fi nee na toju fi dara te sama jabar macha allah rusuma ko présenté fenn sëgguma benn yoon su may ànd ak moom foruma de damaa tànn damaa tànn ci kanam tànn ci jukko tànn ci lépp ma su wax ci moom sax émission bi li ci <laughs> mbay daal mu ne balaa maa jooy dama nobaate. lii lañ leen indiloon tey ñu àndoon nag mbay Dollar borom Dollar Events mu wax leen lan la bëgg doon en même temps mu waxaale ci lépp li nga xamante ni dund ko ci muy lu neex muy lu na naqari en même temps bu remercier ci rakk yi mi nga xamante ni mooy soxna man tamit noonu lay def rek daal di sama mag rakk yi jàllo jéeri aaw buuru këram yow itam ba nga toogee ba tey jógoo maa ngi kontaan bu baax a baax ci samay caméraman di kontaan bu baax ci di kontaan ci euh, macha allah suñu gan ku bees ñi nga xamante ni xaw ma nu mu tudd maa ngi kontaan ci yow bu baax a baax di kontaan ci sama bopp man mii ma madame Diogo dëgg neexul di kontaan ci londaam ndaam macha allah mi ngi jàpp ci lépp élage Euh, Bamba euh, di kontaan bu baax a baax ci ma dem Guèye fi mu génn ak man ci ay dàll déggal lii Binouche Ba moo def nii ci cheveux naturel dëgg neexul émission baa ngi noonu boo ma bëggee gis da xam nga fi ma lay wax laala nank YouTube dem Il Vision Média abonné ti gis sa flèche lu ma def rek mu fekk la fa ñu fëlaale ànd ak moom di dem maa ngi remercier ñëpp di kontaan di nuyu bu baax a baax sama mag sama xarit aji Fatou Wilane depuis Kaffrine rajo Kaffrine ba tey yaa ngi jàpp bàyyi woo luñ dugal ci site bi rek bu ko gisee dina ko commenté mais dina yëkkati woo ma encouragé ma mais wax ma li nga xamante ni moom laa war a changé ba ci solu ba ci lépp lay wax ak man ma lay jaajëfal bu baax a baax mag yi lépp lu ma def ci lu baax rek jox teg naa ko sa loxo maa ngi kontaan ci ñëpp di béggee ñëpp di fóon. Dollar Event si tey jii képp ku ko soxla woon bëgg koo jot mën ngaa woote ci numéro bi 77 773 78 31 77 773 78 31. boo bëggee dem ci whatsapp bi boo ma bëggee jox whatsapp da ngay def 444 31 06 444 31 06 ba tey di leen fàttali leen tamit le 13 février incha allahu rabbi ñu ngi ci Kabana Club mooy lancement wu événement bi mooy lancement wu dollar event bi ñu ngi ci àndal nag naanaan bu mag ndaanaan bu kenn doon natable muy Soriba ba tey duñ ci yem duñ ci ànd ak Soriba kase képp koo xamante ne artiste boo xamante ne dollar mës naa liggéey ak yow di nga ñew ci jour boba di nga ci def ben morceau ku ci melni Sidi job dina ñew sama waji man faté na ko sax ma ngi jéggulu nak bu baax baax doom day hmm? ku ci melni Tarba mbay El Hadj Keita Bambali Seck Mandiaye Seck euh, Demba Gisee buma limé damay juma bép artiste bo xamanteni dollar mësna liggé ak yow dinañu pare dinañ ñëw te ni ngeen top leen ci euh, chaîne YouTube bi muy elvision media té te tunga ne du tew ñu dara ndax di nga leen gis ñom ñepp ha ah. ndax waaye El Vision duñ leen bàyyi dinañ leen fekk kenn ku ci ne fa mu nekk ci ñoom ak fa mu toogee ak na mu toogee ñu dégg le micro noo gisee dollar ak noo gisee dollar event bi ak nan lañ koy waajee. incha du teew ñu nataal dañu bàyyi lépp ci loxo Evel Vision rek. tarka la noonu lañ koy incha allah dinañ ci émission bi nu ci fépp dinañ la topp ba ci biir événement nee naa la booy wër xarañte ak qualité bu baax il faut nga ñëw ci ñun ndax fii ci ñun ci la mburu mu xoyam xoyamee te képp koo xamante ni yor na mburu rek xamal ne suñu boulangerie la génnee dëgg neexul. Papa Kewa dafa maa yóbbante ci yéen de. waxal ni na ma ngir yàlla wërusul bi yoon na ko def nank rek mënuñ ko def naan papa loolu daal loolu daal bi ma ne ko waa El daal neen nañ ñëw seet si la ne nee na ma daal ngir yàlla rek ngeen def ko nànk yóbbante la te yóbbante ak la loolu laa fi amoon comme lu may wax wasalaam dañ koy topp mbay ba xam comme ni ma koy waxee saa su nekk El Vision li neex ci moom li baax ci moom ak bépp qualité boo ko bëggee xam demal Google nga tàppe www nga def elvisionmedia point com